day ah nii kilifa yoree ko day xaw ma kañ lay jóge ci réew mi looloo jara laaj termine yéene kaay ne dama ne ci ñaari fanu yàlla rek laa lay wax ni la day waaw lu tolloo juróomi téeméer ak fukk juróom ñett ci ay doomu aadama ñoo korona allahu akbar dama ne la lu tolloo fukk ak ñeent ci ay doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéene kaay gi dama ne la gis nga day sacrifice dëgg la ñu war a def laa la wax communication agressive bu tar rawatina nag il faut yàlla ji ci boppam kon daal di nuñ teg loxo dee ngir jàngoro ji a génn kon mi maa ci boppam ñoom kon ni ñuy explosé ni lée looloo doy waar dama la amul dara loo xam ni kon mooy wane ne gis nga jàngoroy coronavirus gi lée léegi mu génn ci réew mi demal ma ca aéroport international Blaise Diagne bi lée ay faux test ñoo fa am yaa jum wala maa jum ma ne loolee Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax laa la wax tribune yéene kaa ne mais i gis yii indi yi kon di gën a bëri day mi ngi nii tege mais ndaje yi mi ngi am ba léegi ni la fii ci senegal laa la wax dëgg la dëj yaa ngi nii nit ñaa ngi daje ngénte yaa ngi nii lée nit ñaa ngi daje takk yaa ngi nii di mariage yi lée nit ñaa ngi daje évidence yéene kaay ne yori nag wàllug mbas moomee day ah lees waxul jabari na ca de lool docteur Mariama Diallo day jabaru Papa Diop maire de Dakar woon waaw ndaw si day nee na xam nga fan la ñu juumee ci fàggandiku ga prévention ba la ñu defee ay yu bare bare laa la wax ndaxte dolli tamit dañoo mënu la yay mënuñoo convaincre sénégalais la mbas maa ngi nii la di rey fukki doomu aadama par bis te am na ay nit yoo xam ne dee gëmuñu ba léegi nii na jàngoro jàngi jabaru Papa Diop bi di docteur Mariama Diallo yemu ca ndaxte nee na mais numéro vert baa nga ne la bu sonné balaa sonné te yàlla xam te ministère de la santé nag nañu jàpp ne xeex bi nekkul xeexam moom dong déedéet box foofu li ne gis nga wàllum covid 19 joojee waaw sénégal day jël na kubba nag maar day taali dama ne la ci benn semaine ah lu tolloo juróom benn fukk ci ay bakkan daal di rot soixante mort allahu akbar laa ilaha illa allah exclusive yéene kaa ne covid te day kuréel gi senegal meeru sénégal te Aliou Sall jiite leen di AMS waaw corona jàng leen di jeexal de maire yaa ngi dee ba mel ni laa lay wax ni lée ay weñ yuy dee lu tolloo fukk ak juróom benn laa ñu bokk ca kuréelu Aliou Sall googe wuy seen borom maar day xaw ma kat mooy fal Macky Sall 2024 laa la wax moo tax it am na benn waajoo xam ne day nee na maire yi ci boppam kon la ñu war ne ràpp tëj laas xoolal ma diggante ajjuma ak samedi rek waaw corona ji day lu tolloo fukki doomu aadama ak ñeent la rey allahu akbar docteur Mariama Diallo day di jabaru Papa Diop daal di ne expliqué nag lan moo sabab musiba yi dee ak problème yaa problème yaa ngay tàmbali ne kon ci aéroport international Blaise Diagne kenn mënu koo koo vérifier laa la wax réew mi quotidien ne waa doomu aadama yi nga xam ne kon dañuy dee ci seen i biir kër nag looloo doy waar looloo doy waar ñii corona gi di rey te nit yi xamuñu leen laa demal ma ca armée lu yoof yële ñaar fukki doomu aadama la suul par bis allahu akbar la ilaha illallah moo taxit entreprise yi day ak a foo eh. sànni mbaatu mu teg laa la wax le soleil yéene kaa ne njiitum réewu Afrique yi day bu ñu sañoon ñëpp pikiiru ñëpp am kàttanu pikiiru laa la wax le quotidien yéene kaay ne pikiir yooyee de yombul de ndax lu ëpp fanweeri million ak juróom-ñett ci ay dose ci million waaw moom la ñu war a jënd de critique kaa ne cas communautaire ragal lu nag fi mu koy wàccee la yor libération yéene kaa ne génn adduna wu journaliste bi la di Jean Meissa Diop day mu ni maa wàcc na de ne ka doon day di leen wan fuñ jaar bu sol ba dem na de Jean Meissa Diop dem na de te jamono jooja 24 heures yéene kaay nee na xoolal ma ca mbuur kaat waaw lu jege ñetti téeméer ci ay kër lañu daaneel yaakaar gu tas la askan wa di dund nag fi mu nekk ni lé Souleymane Jéeme day waaw nee na ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo nekk ca kër yoo yee buur yàgg na leen wax ne leen seen kër yi day danañu ko jaarale yoon régularisé ko ah Moustapha Diakhaté la xew ca Thiès ne du dara nee na président Macky Sall la mu diggee woon na ko def laa la wax préfet bu Thiès ak Descos ah ña ngay défendre deux ak di dégager kon seeni responsabilité sur ce année en tout cas 2017 waaw président Macky Sall ca boppam moo diggoon askanu mbuurkat googe ne leen seen terrain yi seen kër yi leen ko jébbal di danañ leen ko delloo dee wuute nañu ak Abdoulaye Dia bu Sénico moom mi dem tribunal gagné 245 familles pare may leen terrain ba eh way waxtaane waa ñoo lànk day ci lu jëm ci wàllum conseil constitutionnel yi nga xam ni kon dañ ko waroon a bind ak luwaaw état d'urgence bu Macky Sall bu bees bi de waa ñoo lànk yekk nañ lu mel ni xemee waa PDS parce que gars nag jàpp nañ ne waa PDS yi dañoo saful yàpp saful njënd ni ñuy doxale ak Sall nag waa PDS ni ñuy doxale ak Sall war nañ koo xoolaat aha waaw waaw moog ne waa ñoo lànk googee day waaw coowal Boubacar Seye ak eh, ak réew mi la wax Alioune Tine day ci tribune yéene kaay waaw nee na Boubacar Sèye waratul def une minute ci biir kaso bi laa la wax une minute tribune yéene kaay ne déggoo leen ma de loi d'urgence coowal Boubacar Sèye mi lée ñoom Mourtada Seck day ak ñañ àndal te ñoo lànk jógee waaw nee nañ démocratie bi nga xam ne kon dañ koo bëgg a rwandisation duñu ko nangu Dakar Times gis nga wàllum immigration yoo jee day waaw Union européenne tontu la xam nga lan la génnee na projet yi nga xam ne dañ koo financé kon Sénégal kii 2016 ak léegi nii la xanaa Boubacar Sèye kon ko bàyyi mu ñibbi léegi direct news la bu Ecotra daanu na de soxna moomi kele daal dinay gagné kon appel ba aa maa la ko parce que te dootul yàggati dee ko dégg mu wax gars yi tamit dee leen ñu wax Dakar Times dañu présidence de la république waaw mbaadu gars dañuy dellu siwaat kala kala ah ñi ngi xam le ne Aly Ngouille day dana dellu siwaat kon ci wetu président Macky Sall moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mi de nekkoon premier ministre ak Amadou Ba nekkoon ministre affaires étrangères parce que situation politique wa affaire day moo ko laaj waaye itam gouvernement bi na muy liggéeyee ni lée moo ko laaj <laughs> dellu si dellu si dellu si dellu si dellu si dellu si dellu si dellu si jàppaleen ne pétrole bi moom nit ñi mënuñu koo fàtte déedéet parce suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat tam dañ ko tere rek boo paree ma ne